jëli firnde yi te suba sa mu ñëw ñu laaj ko mu ni naam lii moo ko wax waaye sax dafa juum waa ji ne ko waa ana firnde yi mu ni firnde yi moom dafa juum ci IGE ak IGF IGF la bëggoon wax waa ji ne ko waa d'accord léegi rapport IGF bi indi ko te mi ngi yor classeur mu ne ko bu ñu demee ba ca juge ba ca moom mii sax defe naa wax ko ni ko bu dofee bañ dem ca juge ba li koy dal dina gën a garaaw li may wax nii yëpp ci PV laaj ko wax avocat yaa ngi nii toog bu fekkee ñeme na ba am fitu dem procès dina gis dinañ wax leneen leneen yeneen wax yu dul waxi rapport daal di jël crasseur am ay preuve am ak firndeem dem ñii ñoo xam yoon ku ci am laaj nga laaj ko nan lañ ko cité. man defuma procédure droit man setal sama der laa bëgg ak wan askanu senegal ni que kii fenkat la bi loolu dooree mu jóge dikk ak citation bi waa këram yëguñu ko ay xaritam yëguñu ko képp kum nekkaloon yëgoo ko da ko doon nëbb ba muy dugg dikk da doon nëbbatu da doon nëbbatu di raser mur yi pour wax leen nit ki ngeen nit kiñ ko séqal nan la mel dama leen yi wax firnde jour ba mu wuy ji dikk lépp lu yeew yi amoon responsable politique parti bi mu bokk lépp lu amoon ci responsable politique jour boobu yaa ngi buntu dikk di jàppale ñaari député yu bokk ci ñoom yuñ jàpp Ousmane Sonko lëmasu kaalawu nëbbatu ni kaña dugg biir dikk seetiwul sax député yi parce que ñemewul wax leen ko donc ba ñuy commencé da doon nëbbatu defe ni mën na koo lijjanti bañ ku ko siiwal parce que moom wóor na ko wóor yàlla ni que li wax dara amu ci mu jóge ci loolu ñu cité ko bañ ko cité mu xam ni bay woy na mbuus mu commencé naan ay yëguma ko ay convoqué wuñ ma yàlla seede na ni que procédure bi amul dara luñ ci def loo xam ne dañ ko def ndax man dama am ndomba tànk wala dama bokk ci parti politique lépp ci yoon lañ ko teg mu xëy suba teel ñu convoqué ñu le deux mu xëy suba teel daan ni moom jotul convocation huissier bi ko yóbbuloon convocation bi muy wërloo wër ak moom bu demee siège am woo ko mu ne ko maa ngi sama kër bu ñëwee këram mu ne ko maa ngi sama siège bu ko woowee mu ne ko maa ngi Ziguinchor bu génnee leneen lay wax ci mujj ki mu ne ko jox ko sama gardien moom moo wax ñu jox ko ko le deux mu am fitu taxaw ci sénégalais yi ni moom moom gisul convocation déggul convocation mbir mi dama ciy sant yàlla parce que ñu bari dañ cee dugg dama ciy sant yàlla parce que ñu bari dañ ciy xame bari na ci ñoo xam ni amoon nañ cofeel ci moom wala foogoon nañ ni que lu muy wax am na bi ñu yëgee li xew ci jëf bi xeeb nañ ko donc man xeebuma liñ ci am am na ñu foogoon ni que lépp lu mu wax téye na ko yor na ko ba ñu yëgee am firnde ni que lii la def ak huissier yi ñoon dañoo génn ci moom man de preuve laa laajoon ba tey ci waxtu wi Ousmane Sonko indiwul benn firnde buy wax ni que moom document yooyu mu téye woon lu am la léegi nag man dama gëm sama yoonu réew damaa gëm kuréel yi téye sama réew damaa gëm institution yi téye sama réew damaa gëm république donte nag jullit akkan la mais dama gëm république parce que ci loolu la ñu nekk nit a ngi nii koo xam ni moom nee na la mu gëm booy jiiñ nit dangay ngay téye firnde ba doo ko jiiñ ba pare sax dem wuti ko nit a ngi nii koo xam ni jiin ne bàyyi jàmburu yaayi jàmburu ni dafa luubal vingt-neuf milliards ca moom am na firnde ca mu wóor ni ko waxam dina egg fu keneen egg loolu moo tax ni ñu mën fi gis ku mel ni kii parce que waxam fa muy egg jot nañu wax fa waxam di egg fenkat la egg fa tey ba fii ñuy waxee ak ñu ngi sant yàlla parce que yàlla may nañu ndam ci moom dañuy sant yàlla yàlla may nañu ñu setal suñu der yàlla may nañu bépp tuuma bu mu wax ci yëf yi nii yàlla wane ne du dëgg ay waxam wane ne di dëgg waaye tey yoon bi ñu gëm tey am na ni mu jógee nag mooy gàkkal suñu kuréel yi amul corps constitué bu Ousmane Sonko saagawul juge yi ñoo bokkoon ak moom classe ñoo bokkoon ak moom école moom moo leen gën juge yi baaxuñu kenn xamu ci dara kenn du ci liggéey ordre des avocats dañ koy xeex parce que dañuy suspendre ay avocats am Sénégal euh, bëgguñu lu jub parce que moom bu waxee dara euh, euh, nit ñi dañ ko war a def ndawu Sénégal da ngeen irresponsable parce que léegi euh, bu leen woowee kaa ñu toj kenn du génn donc ay défaillant ngeen kooku mooy Ousmane Sonko kooku mooy Ousmane Sonko tey ngoram mayu ko mu génn wax dara justice parce que jàpp na ni que moom comme que yaakaar na ni yaakaar nag laa wax loolu dinañ ci dugg après borom xam-xam yi tamit dinañ ci dugg war na mën a présenté wu moo tax mu tiit xamul lu muy def moom ak ñi mu àndal ak ñi mu taxaw damay wax fii tey Ousmane Sonko fenkat la ku ko wax ci dëgg nga ko teg parce que yoon àtte na ko tribunal nee na Ousmane Sonko fenkat la tey Ousmane Sonko dencalul dara yorul benn preuve ku ko wax waxoo wax nga dëgg ku ko wax juumoo tribunalu Sénégal atte na ko tey Ousmane Sonko dégâts yi muy créer ci dëkk bi institution yi muy saaga wane na ni que lam doon wax méngoowul ak lu am weneen fenango donc suñu mbokk yi nañ delloo si xel yi nit a ngi nii koo xam ni ba fii mu egg si tey nit ñi jàpp ni egg na fu kawe bu opposition bi ñenn sax ragal ber seen yoon assumer seen bopp jàpp ne que moom day gagné moom day nekk président ñu def topp ko ba mu leen di xëcc ci lu dul dëgg jungeen jungeen parce que ay fen mënul dëgg jungeen parce que fen du mës a féete kaw dëgg donte yéeg ba day kawe rek mais daanu bi day gën a metti Ousmane Sonko daanoom commencé na daanoom commencé na parce que tey képp kuy sénégalais xam nga ni lam daan tiitali nit ñi munu ko boobu ba léegi mi ngi woote tey képp kuy sénégalais xam ngeen ni jeunesse bi muy woo ak ñi ko topp ci coobare boppam la pour yëfi boppam kese woowu leen pour réew mi jub woowu leen pour réew mi dëggu woowu leen pour defar réew mi woowu leen pour programme da leen yi woo parce que moom dafa tiit def na njombe yaakaar na ni que yoon day dal ci kaw mu def ko ñun ñoo ko gën a doon gor parce que magistrat yi muy saaga man démb man ak samay avocat bañ duggee ci tribunal bi gis beneen magistra waxuñu parce que dañoo nangu ni que fii yoon lañ fiy wax saaga wuñ kenn donte mënoon nañoo wax parce que nag ñoo ko fa indi mais kenn dégguñu parce que dañu jox cër suñu yoon ay avocat lépp lu ñu def dañ leen di jox cër ba ca wax ci beneen dossier bu maître El Hadj Diouf bii nekk am na leneen déggu leen kenn wax parce que nangu nañ xam nañ ne que hors des avocats ils sont autonomes Euh, renvoi bi gën a gudd bi mu am ci suñu procès un mois ordre de avocats moo ñëw wax ak juge bi ci affaire boo xam ne reteniroon nañ ko ba pare ñu nangu kenn déggu ñu ñu wax parce que dañoo respecté kuréel yi téye réew mi wàññi leen wàññi suñu réew la wàññi leen doyadil suñu réew la euh, gàkkal leen gàkkal suñu bopp la mais moom boppam rek moom boppam rek moom bu juge bi àttee juge bi baaxul mais loolu nag day jeex te bu defee nee ni rëcc na rëccul rëccagul de jeexul de waaw affaire bi am na deuxième mi-temps parce que li ñuy wax lépp ay wax yu dul dëgg la dégg naa leen ñii naan non Mame Mbaye li muy warante mooy police ak gendarme police a ko jàpp gendarmerie jàpp ko rapport ba ci deuxième mi-temps bi donte amatul droit man may naa la droit boo ëndee rapport bu dul sax bu ugf boo ëndi bu wax ni que man def naa lu dul yoon sàcc naa alalu askan bi ma dem ci kaso bi yow ñemee woo wax loolu ca boo ma ko waxee man man ma génn lu la yóbbu yow wax dëgg dafa jot ci réew mi waxante dëgg dafa jot ci réew mi naxante ak naafeq ak ragal dafa war a jóg ci réew mi benn nit mënta toog li mu def ci àddunaam yépp ci ay fen la ko sampe yow laay njëkk jël seede assemblée nationale ba ngeen nekkoon plus fort reste la fa duggee wax ji di tax yéen ñii ngeen xam ni actualité moo leen intéressé ak peut-être événement ak lu luy indi buzz li mu njëkk a def mooy wax ni que député du fay importe muy ay feni kese képp kuy député xam ni ay fen la Sénégal ñëpp xam ni ay fen la mais nit ñi ñenn ñi rus ko wax ni que lii da ay fen la ñenn ñi ragal ni que ko buñ ko yóbbee lii da leen ci dal lii ay fen la mais foofu la commencé ci ay fen la commencé ascension Ousmane Sonko ça a commencé par le mensonge et ça va se terminer par le mensonge déclaration bi du njëkk a def bi ko nit ñi naan député bi kan la leneen la leneen la déclaration boobu mooy fii assemblée ñun moom ma nga fa inspecteur des impôts la mu ni député yi duñ fay impo réew mi yëpp xam ni du dëkk mu jóge fa daal ni député day di jox 10 millions mu jóge fa jiiñ bàyyi jàmburu 94 milliards mu joge fa dem négocier pour nangu donc moom addinaam lépp ci ay fen lu ko yóbbu tey alhamdulilah man établir naa ci dëkk ak këyitu tribunal ni ka fenkat la parce que yéen ñëpp seete ngeen mu ni rapport moo ma téye rapport boobu moom mu ni mi ngi ci loxoom mi ngi woon sax ci téléphone am ba tey jii nii génnewul rapport mais dafay wane leneen ci mbir mi ni ko jàngul walla bu jàngee tamit xamul bu xamulee tamit nit ku bon la parce que nit ku bon mooy xam dëgg xam li mën a nekk di wax safaan wax li mu njëkkoon a wax moo gën a yanu maanaa ci ku jàng te rapport e moo ma jàpp moo gën a yanu maanaa ci ku jàng parce que IGE mën na def rapport jàpp ma mais IGF mënuma jàpp parce que bokkuma ci champ d'activité te moom def na 15 ans impôt et domaine moom nee ENA la génne moom nee na ministère des finances la bokkoon kon mënta bañ a xam loolu mënta bañ a xam loolu loolu di indi beneen firnde pour wax ak ñi nga xam ni dañ koy topp ca naan xaw ma mu sell mi ca yàlla rek tax donte mën nañ ko def te bon foi tey ci kàttanu yàlla am nañ firnde ne ba Ousmane ko du waxkatu dëgg tribunal àtte na nee na du wax katu dëgg diine ji tax ñu topp ko ak bi tax ñenn ñi yaakaar ko nee na ku ñu mës daan ci ñàkk wax dëgg ci kuréel lu mel ni tribunal matatoo seede ku matul seede ci lislaam matoo njiit ku matul njiit doo laaj réew mi kon donc yéen ñi koy défendre te naan yàlla moo tax waxuma nag ñi yam laxdar yu ak risaala rek du werante borom yi ñu jàng laa wax dem leen diine ku fen ñu établir ko kuréel dëggal ni que kii wax na dara ca fen la matatoo seede mënatoo nekk témoin ci dara diine dàq na ni yow mën ngaa seede dara tey Ousmane Sonko bu dee ci diine lañ ko teg matatul seede ku matul seede doo jiite ku mënta jiite doo jiite réew mi moom bu jàppee ni que garde na éligi éligibilité diina dàq na ni que mën naa jiite bu jàppee ne ni que tuumaal baayu jàmburu jëkkëru jàmburu yaay jàmburu ba pare di dàqante ci ay kër di football ak naan ay dem naag demuma woo ay nit ba ay nit gaañu ci bu jàppee ni que rëcc na ci loolu garde na éligibilité gardewul ngaram donc tey Ousmane Sonko fenkat la Ousmane Sonko amatul ngor Ousmane Sonko amatul dignité foofu lañ tollu tey loolu moo tax ma sant yàlla parce que man dimbali naa sama njaboot ba setal sama der dimbali naa sama soxna samay xarit samay àndandoo samay rakk ñi ma àndal ñi ma wóolu bañ xam ne ko wax ji amul waaye tamit dimbali naa sama réew bañ gis ni que kii ñu yaakaar du waxkatu dëkk ak ku mën a far ci moom ak ku mën a bokk ci moom ak wàll boo bokk ci moom tey Ousmane Sonko waxul dëgg léegi nag danaa tënk tuuti jox avocat yi bu fekkee ni que am ngeen lu ngeen di laaj damay fàttali ni que am na ñu bari ñoo xam ni ci ci bëgg lu baax ak bëgg jàmm dañoo yaakaar ni que waroon nañ maa woo doon ay kilifa pour naan ma retirer plainte retirer lii retirer la wallaahi du ñàkk kersa du bëgg bon du soxor amul benn problème personnel entre man ak moom dafa di damaa war a sàmm sama der